Sénart Vision présente Sénégal Vibes. Mesdames, Messieurs, préparez-vous à une soirée d'exception le 16 novembre 2024 à Montréal Montréal ying Sénégal Vibes. Sénégal Vibes Canada lay le 16 novembre au Club Soda une soirée d'exception soirée de gala d'exception. et Ilam, est-ce que tu es prêt vraiment pour ce grand spectacle Wow, DJ Books, Arenade, le 16 novembre, le bal des connaisseurs. Le 16, Club Soda, Arena, Nous prenons l'avion pour Montréal. C'est parti. Wow, Wahlem Mustapha. waaw Sonko dafa am lu ma yóbbante ci moom ma bëggoon na ma recevoir ma ni ma lànk waaw ma lànk recevoir waaw ba démb ba démb ba démb waaw na ko fi woote waaw waaw Sonko moo ma yónni woon bu dee dooma mën recevoir nga boole ma ak capitaine nangam nangam ay dàllam sax kenn séenu ko

dañu tudd Yewwi Askan Wi bu ñu honnêté bu ñu honnêté dinañ xam ni Yewwi Askan Wi fu mu yegg si man maa tax mu yegg si fa du du sama jëmm ndax la may def fa mu koy defe yàlla rekk a ko fekk pour di leen dimbale pour ñu dem de ma defe ni kon nag ca loola it laa dëgg ba duma Macky Sall duma yu sap-sap waaw li nit ñuy soow yépp soow soow soow man wóoroon na ma ni dafay dem mu des nag lay ñëwaat suite ba ndax am na loo xam ni pareekul waaw bu ko defee kon nag may ñaan nit ñi rekk ñu ànd ak seen xel ànd ak seen sago te itam rekk bañ lu riir rekk nga topp ca di dardari di tey dafay baax waaw ñi ca am seetlu am dégg ñoo nga ca mbokk yu bare sonn nañ ci xew-xew bi sax ñoom Barthélemy Diaz yónnee na fi ay ndawal yónnee fi ay enveloppe te xam naa it au xalaat lan la ndax yóbbu dina wax ko. ku defe ni da nga ñuy chantage ñun bu ñu la chantage yow doo ñu chantage ki may waxal loolu mooy Sonko ci boppam waaw man maa ko war a chantage ndax bu dee dund ba tal lii yàlla ak sama taxawaay tax keroog bañ ko jëlee prison mu nekk dans le coma ñu yóbbu ko principal man mi ma téléphoné professeur Watt Khalifa Babacar Watt ni ko taxawul ma Sonko mok pap Alé ñom parce que ci liquider leen la ñu jëm te ëpp na bàyyi noonu mu taxaw moom professeur bu ci ne sax du demati gërëm ndax surveiller leen rek ndax bañ bu fa jógee léegi ñu jar gandaawam def leneen kon nag bu demee ba yàlla may ko mu tal ko mu mel ni daf ñu ignoré maa ngi koy xaar ci législative yi kenn rek moo ma jaaxal mooy jomaay jomaay ku baax la te yëg naa ni lu baax rek la yéene réew mi mais ku xool li xew di nga am loo comprendre waaw mais it yàlla mu ngi fi du fi jóge waaw na continuer rek am yéeneem bu rafet fa yàllay jaar ba mu réaliser li muy réaliser kooku kenn mënu ci dara waaw bu ko defee kon li la ciy reeloo moo di tappalekat yi léeg-léeg nga gis ku téléphoné ni waaw wax leen Serigne Moustapha waaw Sonko dafa am lu ma yóbbante ci moom ma bëggoon na ma recevoir ma ni ma lànk ma lànk recevoir uma ket waaw ba démb ba démb ba démb am na ko fi woote waaw waaw Sonko moo ma yónni woon bu dee dooma mën recevoir nga boole ma ak capitaine nangam nangam ay dàllam sax kenn séenu ko waaw bu ko defee comédie yooyu lañu war a bàyyi Sénégal changé na te sunu génération bi xëy na mag ñi ñoom ni leen yàlla bindee la leen yàlla bindee mais ñun sunu génération bi nax ñu yombul waaw moo tax ku yebu looy def rek nga xam ko waaw e, bu ko defee kon nag waaw dañu tudd yeewi askan wi bu ñu honnêté bu ñu honnêté dinañ xam ni Yewwi Askan Wi fu mu yàgg si man maa tax mu yegg si fa du du du sama jëmm ndax la may def fa mu koy defee yàlla rek a ko fekk pour di leen dimbale pour ñu dem de l'avant ma defe ni kon nag ca loola it laa dëgg ñu bokk ci dayra ak ñu bokkul ci dayre ñi ame parti politique ak ñi ame yeneen regroupement yooyu yépp léeg nga gis sax ñu yónnee annoncé ni dañuy ñëw waaye mujj gi nga yëg ni ñëwuñu di nga xamit li tax ñëwuñu lan dafa am ñoo xam ne fii ci Sénégal boo jógee ni ci mustarshidin yi laa jëm duñ la may jàmm luñ la mën a wax pour décourager la dinañ ko def mais jaru ko mustarshidin soxlawul kenn ndax yàlla defal na ko lépp ba noppi waaw waaw bi ci des itam ku defane da nga ñuy chantage ñun bu ñu la chantage yow do ñu chantage ki may waxal loolu moy Sonko ci bopam wa man mako wara chantage ndax budé dundu ba ak sama taxawaay tax keroog bañ ko jëlee prison mu nekk dans le coma ñu yóbbu ko principal man mi ma téléphoné professeur Watt, Khalifa Babacar Watt, ni ko taxawul ma Sonko mok pap Alé ñom parce que ci liquider leen la ñu jëm te ëpp na bàyyi nonu mu taxaw mom professeur bu ci ne sax du demati këram ndax surveiller leen ndax bañ bu fa jógee léegi ñu jar gannaawam def leneen waaw kon nag bu demee ba yàlla may ko mu tal ko mu mel ni daf ñu ignoré maa ngi koy xaar ci législative yi kenn rek moom ma jaaxal mooy jomaay jomaay ku baax la te yëg naa ni lu baax rek la yéene réew mi mais ku xool xew di nga am loo comprendre Sénart Vision présente Sénégal Vibes mesdames messieurs préparez-vous à une soirée d'exception le 16 novembre 2024 au Montréal Montréal dina yëngatu Sénégal Vibes Sénégal Vibes Canada Lydon. le 16 novembre au Club Soda une soirée d'exception soirée de gala d'exception et Ilham, est-ce que tu es prêt vraiment pour ce grand spectacle Wow, DJ Books, Arenale, le 16 novembre, le bal des connaissances. Le 16, novembre, Nous prenons l'avion pour Montréal. C'est parti.